بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaara mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bi di waxtu aljumaa dellu si di sant yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke waaye may nu itam nu tal ko te loolu lépp moom borom bi mu jaare ko ci yërmandeem yërmandeem bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la ko jëmmale ba tax mu wax ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin su ko defee itam yàlla ci organisation am mu fexe ba mbindeefam yépp mu créé liaison seen diggante ak moom borom bi te liaison bi itam wax na ni li koy activé ci jamono ju nekk mooy baat bi mu ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu di ma jàmm su ko defee loolu mooy activer liaison bi nga xam ni mooy dox diggante mbindeef bi ak boroomam waaye su ko defee itam jaam bi moom yàlla mi ngi ko accepté ak lépp loo xam ni rek ñëw na présenté ko boroom bi comme qualité walla comme défaut waaw ndax li gënal yàlla mooy jaam bi buy présenté wu ci kanamam mu indaale ay qualité kese waaw waaye ca boobu borom bi dàqul ni itam am na ñoo xam ni du ñàkk ay défaut yu nekk ci ñoom waaw moo tax mu ni défaut yi nag li koy far ci bi nga nekkee ci àdduna nee na mooy nga fexe ba di ma jéggalu lu bare waaw mooy sansu baatu istixfaar waaw mooy sens bi nga xam ni baatu istixfaar am na ko borom bi nee na maa bind jaam yi jox leen i qualité waaye maa leen bind itam ñu am ay défaut waaw su ko defee nag mu ni sunu rencontre bu ñuy daje li may bëgg mooy qualité yi ñu ëpp défaut yi waaye mu ni défaut yi itam farata la ci jaam bi mu fexe ko dindi laata muy dajeek man mu ni moo tax ma indi baatu istighfar jox ko degré bi ma ko jox waaw moo tax baat la boo xam ni jullit waru ko négliger mukk ndax baat bu am solo la baat bu am solo la waaw te mooy di jéggalu borom bi su ko defee it jaam bi moom li koy dimbali mooy mu fexe créer ci digganteem ak boromam lanoo tuddee benn mode de vie waaw benn mode de vie spirituelle waaw mooy ni ngay gisee nit waaw bu nekkee ci àdduna mu tracé fi muy jaar wax ni lii mooy sama objectif mooy boo gisee nit bu nekkee ci àdduna mu tracé fi muy jaar wax ni lii mooy sama objectif waaw kooku bu ñu ko waxee nit ku am xel moo tax nuy wax nit ku am xel moo tax nuy wax ndax nit su amee xel dundam dana ci am objectif waaw moo tax koo gis mu ni dundam moom amul benn objectif soo ko tuddee ni ku am xel la it yaa ko tuddee rek waaye fekk na boroom xel yi xam nañ ni moom bokkul seen milieu ki am xel toujours dafay rëdd ni objectif bii laa bëgg atteindre ndax dana ko atteindre wala du ko atteindre ci yàlla lay dellu waaye moom dana sabab façon dundin boobu la ñu wax ni ni nga koy créer ci àdduna war nga fexe ba créer lu ñu mel sa diggante ak sa borom waaw mooy nga am mode de vie booy dundee ak sa borom waaw te mode de vie spirituelle boobu dañu wax ni war na am temps boo xam ni faw nga wéet rek méditer méditer ci sa diggante ak sa borom waaw faw nga wéet rek méditer ci sa diggante ak sa borom te mooy jël quelques minutes wala jël sax quelques heures wala ça dépend ci sa temps nga toog wéet rek xalaat sa diggante ak sa borom waaw lu am solo la lu am solo la parce que dina defar dina defar nit ki ca bu demee ba xamatul fa mu jëm waaw wala bu demee ba xamatul ca lu mu dugg waaw wala bu demee ba xamatul la muy wax wala la muy dox wala la muy jëf mu mën a am ci moment boobu loo xam ni dana doon lu ko leeralal yoonam waaw te loolu mënoo ko amee lu dul ci méditation loolu mënoo ko amee lu dul ci méditation waaw su ko defee it am na ñoo xam ni dañuy wax ni seen temps ak seen yitte mayu leen nu jël même quelques minutes pour méditer seen borom gis nga ñooñu boo demee ci Cheikh Tijani yi dafay wax ni li nu xamul ñoom mooy lu nu ñàkk-ñàkk jot lu nu ñàkk-ñàkk jot ba seen temps mayu leen nu jël quelques minutes méditer seen borom nee na nanu xam ni dana am bés yàlla méditer loo leen ci loo xam ni du nu mën a bañ mu ni dana am bés yàlla médité loo leen ci loo xam ne du nu mën a bañ waaw ñu laaj ko ban bés la mu ni mooy bu ñu demee ba dugg seen bàmmeel waaw nee na ku dugg sa bàmmeel ba wéet ci kay boo ni woon amoo temps wu médité it boobu da nga médité parce que yow doo nga fay ne ñu ngay déglu muy kuréelu malaayika yi ndax ñi ngi ñëw ak fa ñuy jaar ak lañ lay laaj ak diggante boobu nee na loolu doy na méditation moo tax nee na balaa ngay dem mu lay surprendre nga fexe ko miin bi nga nekkee ci àdduna ba noppi lu am solo la waaw lu am solo la moo tax bu dee mystique yi ñoom du ñu am problème boobu ndax jamono ju ñu nekkee di zikr ñoom ña ngay méditer waaw bu ñu teewee seen kurus rek ña ngay méditer moo tax dem nañu ba seen kurus nekkul rek benn buum bu ñuy tourner waaye dafa mel na benn buum bu seen borom jàpp ñoom ñu jàpp ci di xëcc waaw muy waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraq lu am solo la su ko defee loolu lu am solo la méditation boobu dafay nekk lu am solo waaye itam li muy am am solo yépp bàyyi xel sa boroom mooy farata bi gën a mag bàyyi xel sa boroom mooy farata bi gën a mag ndax bàyyi xel sa boroom mooy jox sens sa méditation moo tax mag ñi kuñ daan dénk dañ lay wax ni boo dee ndaw waaw boroom kawar gu ñuul waaw ñu ni tolloogoo fooy amee bay ñàkk waaw wax jooju jar na delloo si ci axiru zaman ndax fu mu ne jeunesse bi genn wàll gi yépp koo ci wax nga dégg ñu ni fu mu nekk ay amatuñu espoir fu mu nekk ay jeexal nañu ma ni mag ñi de dañ daan wax ni booy ndaw borom kawar gu ñuul ñu ni tolloogoo fooy amee sax bay ñàkk waaw wax ju am solo la waaw wax ju jara fàttali jeunesse bi la waaw beneen bi itam ñu wax la ni ñàkkoo dara su fekkente ni am nga yàlla waaw muy wax ju am solo waaw ñu ni ñàkkoo dara su fekkente ni am nga yàlla waaw beneen bi itam ñu wax la ni buñ la juugaloon ay milliards te amoo yàlla amoo dara ñoom seen ñetti baat yooyu ñu daan wax baat la yoo xam ni ku ci méditer rek di nga xam fooy teg sa tànk waaw waaw ñetti baat la yuñ daan wax waaye baat la yoo xam ni ku ci méditer di nga xam fooy teg sa tànk waaw waaw ndax dañu wax ni borom kawar gu ñuul ñu ni tolloogul sax fu muy amee bay ñàkk waaw te defe naa tey esprit éclairé boobu bu ko jeunesse bi cultivé woon am na désespoir yu bare tey yoo xam ni nit ñi ngi wax ni amatuñu tey fu ñu yaakaar amatuñu fu ñu jëm nangam nangam kon daañu bàyyiwaat xel ni ñoom ndeke tollooguñu sax fa ñuy amee bay ñàkk waaw lépp lenn moo koy may nit mooy nga am volonté fixer sa objectif waaw lépp lenn moo koy maye mooy nga am volonté fixer sa objectif waaw te gis nga nit. pour mu atteindre objectif am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp lu xaraamul rek nee na lu xaraam rek lañ koy tere waaye nee na lépp lu yoon bu xaraamul war na fa mën a jaar pour atteindre objectif waaw nee na nag lu xaraam lañ koy tere kon yonent bi soññ na jullit bi pour nan lay def ba atteindre objectif am waaye wax na ko itam ni ko mën na jaar fu nekk pour atteindre objectif am la muy moytu ca yoon ba rek mooy lu xaraam. mag ñi jàngale lool ci borom kawar gu ñuul ñu ni tolloogul fa muy amee sax bay ñàkk waaye beneen bi itam mooy ñu wax ni lu nit di am bu ci yàlla jiitoo nee ñu am nga lépp waaw waaye ñu ni loo amit bu ci yàlla nekkul ñu ni ñàkk nga lépp kon kooku digle la yoo xam ni jamono dafay laaj nit ñi bàyyiwaat ci xel waaye gis nga yooyu yëpp. àdduna dina la ëmb ba da nga koy fàtte waaw ndax tey bari na crise yu ñuy déplorer ci monde islamique bi crise yu ñuy déplorer fii ci Sénégal crise yu ñuy déplorer ci àdduna yépp ba mu daj en général li koy indi yépp mooy ñu bari seen xel dem na ba fattu te jëluñu moment boo xam ni dañuy toog dellu si waat utiliser waat seen xel bi fattu woon jéem niite yoon bi niy jaar waaw tey ñu bari loolu moo leen yóbbaale moo tax bari na lu ñuy xeexi bitim réew fii lañ ko war a doore waaw ndax léeg-léeg nga dégg ñu ni tubaab yi dañ ñu noot waaw da ngay dégg ñu di ko wax waaw léeg-léeg nga dégg ñu ni tubaab yi dañ ñu noot fu mu ne seen même mise rek la ñu utiliser tekk ci suñuy ressources wala tekk ci suñuy ay organisation ba lu ñu bëgg la ñuy def ma ni pourtant boo gëstoo réew mu mel ni Sénégal ñu noot ñu noot nit ñi tubaab yi ci gën a néew waaw waaw tubaab yi ci gën a néew xam nga noot bi gën a mag mooy nootu benn nit ay xalaat lu mu xalaat noonu la waaw kooku bu fa nit àggee rek xam na ni mi ngi ci nooteel bi gën a mag ci nooteel même bu ko yëgul nag waaw nooteel bi gën a mag mooy benn nit ay xalaat lu nit ka xalaat rek noonu la waaw boo bokkee ci kuréel gu benn nit di xalaat lu mu xalaat noonu la kooku yow nooteel bi la dal moo ëpp doole ci nooteel bu ñu mës a wax waaw waaw su ko defee ñu bari ngi ciy dund ci réew mi ñu nekk. ñu bari ngi ci dund ci Afrique ñu bari ngi ci dund ci feneen ba noppi joxañ tubaab yi naan ñooñu noot te ñi leen noot kat ñoom ak ñoom ñoo bokk kuréel waaw waaw loolu mooy nooteel bi gën a mag waaw boo bokkee ci kuréel boo xam ni benn xalaat la am nit ka lu mu xalaat la ñëpp di def waaw te nit ki kat li muy xalaat moom maanaam tegu ko ci mystique tegu ko ci spirituel ci xel rek la ko teg waaw waaye lu mu xalaat ñu ni ñëpp loolu la ñuy def kooku fa la nooteel yam te nee ñu balaa ngay jéem a balaa ngay jéem a développer balaa ngay jéem a développer ci façon bi ngay liggéeyee muy réew wala muy alal bu jullit yi bokk waaw wala muy organisation religieuse nee ñu li ngay fexe ba noppi balaa loolu di jéem a développer nee nañu mooy nga fexe ba dindi bu mu nooteel waaw bu mu nooteel nag du bi ñu takk ci loxo wala bi ñu takk ci tànk bi ñu takk ci xel. parce que bi ñu takk ci xel bu dañee yeneen yëpp dafay dañ bu boobu dañul boo dindi woon bi ci tànk dindi bi ci loxo yi nooteel ba dafay des waaw te tey boo xoolee ni organisation yi di doxe ci organisation politique yi tey fii ci Sénégal ci organisation religieuse yi tey fii ci Sénégal ci organisation yu bare da ngay gis ni nooteel bu rëy daf cee nekk waaw waaw da ngay gis ni nooteel bu rëy parce que bu dee ci côté religion xam nga lu tax nooteel bi du feeñ mooy tànk nit ki mi ngi tënku ci alxuraan wala ci enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dootuñu débat ci question nooteel question d'interprétation rek la ñuy débat waaw kenn dootul débattre ci wàllu nooteel ci question d'interprétation rek mooy kii déggee na ni man déggee naa ni waaw kii nee na yonent bi hadisam bi nii la ko déggee man nii laa ko dégg mais bu dee ci question politique foofu la problème bi nekk waaw bu dee ci question politique moom foofu la problème bi nekk. waaw parce que ki diriger parti ba walla moom bu fekkee benn pensée unique la am su ko defee yow da ngay nekk ca gannaaw rek di tàcc waaw te booy tàccu nag fan la lay jëme problème baa nga noonu waaw te ñu bari fu mu ne ñu ngay critiquer wàllu nooteel ñu ngi leen noot ca fi ñu nekk ñoom waaw ndax pensée unique baaxul waaw kenn du ko def waaw pensée unique baaxul benn nit doo xalaat rek ni ay cëleer waaw ña lay topp it pour. ñu am esprit éclairé mooy foog la nga xalaat ñoom ñu joxe ca seen gis-gis waaw te joxe sa gis-gis mooy toujours nit ki ñu lay tànnal jàngal ban façon nit la ba noppi soo xamee ban façon nit la nga xam ban programme la yore ba noppi waaw boo ko xamul loo dugg rek dugg nga ci kam waaw te malheureusement léegi xel moom mu amatul waaw nit da nga koy jàng boo jàngee ban nit nga ko seqal ba noppi ba nga xam nit ki nga ko seqal ba noppi ndax nit ki nga ko seqal moo jiitu programme bi nga ko seqal soo paree nag xool ban programme nga ko seqal waaw su boobaa booy nangu nangu booy rejeter rejeter waaw noonu la nit di def noonu la nit di def pour mën a pour mën a pour mën a développer waaw waaye bu dul loolu rek nooteel day des waaw gis nga ñi ñuy tudd tey waxuma sax ci côté religion rek ndax côté religion wax naa la question d'interprétation rek la mais ñi ñu tudd tey ci côté àdduna nga xam ni tey dem nañu ba ñu ni ñoom ay référence lañu ci wàllu défendre la ñoo tuddee ay droits de l'homme kenn ku nekk ci ñoom bu ñu la waxee jaar-jaaram da nga yëg ni nanguwul woon ni benn xalaat rek ay dox dafa doon xalaat ba gis ni ndekete xalaat buy doxal àdduna wala buy doxal réew ñëpp a ko war a bokk waaw bu ñu jëlee ku mel ni Malcolm X noonu la doon xalaate bu ñu jëlee ko mel ni Martin Luther King noonu la doon xalaate waaw waaw parce que kenn ku ca nekk dafa amoon dafa amoon esprit éclairé bu nekk ci moom boo xam ni moom la doon doxe ba ñu wax ni kii kat mi ngi xeex la ñoo tudde tey àq ak yelleefu doomu aadama yi waaw tey ñëpp reconnaître leen te ñooñu kat loolu ñu doon xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ci jiitu waaw xam nga yonent bi dañ daan toog ci pénc ñu war a jël décision ci dara balaa nuy jël décision yonent bi ni nañu consulter saxaaba yu ko wër ku ci ne nañ la laaj sa xalaat waaw ñii ñëw ci Ababacar laaj Ababacar nit nii laa xalaate ñii ñëw ci Umar laaj Umar nit nii laa xalaate ñii ñëw ci Ousmane ñii ñëw ci Aliou suñu xalaatee ñoom ba noppi ñu delloo dajale xalaat yi wëlbati ko ci yonent bi waaye buñ ko wëlbatee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom duñ ko wax rek ni ko nan nga xalaate dañ koy wax lan la ci yàlla namm waaw gis nga laajuñu ko rek ni ko utiliser sa xel dañu koy delloo si ci wax yoom waaw ndax dañu xam ni yàlla moo ni wa ma yantiqu anil hawa waaw wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waaw ñu xam ni kon yàlla nee na kii du wax ci bakkanam waaw wa ma yantiqu anil hawa kooku neex na laaj ndax du wax ci bakkanam yàlla ko ñu ni kon bu waxul ci bakkanam léegi ci lan lay wax yàlla ni il huwa illa wahyun yuha waaw lu mu wax rek fekk na ni programmé nañ ko jaar na ci espace intermédiaire yi di suñu wax ñu wax yu ko ko pour mu wax moo tax ñoom dañ daan ñëw waaw ñoom Ababacar Umar Ousmane Aliyun ak ñeneen sahaaba yépp ñu daje ci pénc ku ci ne joxe sa xalaat ba noppi ñu jël xalaat yi tënk ko dajale ko indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ni ko nag lii dañu bëgg nga wax ñu lan la ci yàlla wax waaw lan la ci yàlla décidé su ko defee yonent bi ci dalam waaw mu dal ànd ak lañ ko laaj yépp waaw mu dal ànd ak la ñuy xaar ci moom yépp mu dal ànd ak yi nii déglu ci moom yépp jékki sànni leen borom bi nii la namm waaw li mu wax rek dañ koy nangu waaw lu tax ñu koy nangu wa maa yantiqu anil hawa waaw dañ koy nangu wa maa yantiqu anil hawa kon dañ koy nangu waaw in huwa illa wahyun yuha kon dañ koy nangu waaw su ko defee noonu la yonent bi noonu la yonent bi doon doxale wàllu société musulmane waaw ba bi Ababacar di nekk amirul muminin sax bokk na ci kàddu yu ko yonent bi dénk waaw ci mujj dundam mooy yonent bi ni ko na ngay fexe ba na ngay consulter na ngay consulter ñi nga xam ni yaag ñoom yenn bokk mission bi waaw na nga leen di consulter lu am solo la waaw moom mu di leen consulter waaw moo tax léeg-léeg am na yu ko daan jaaxal dafay woo Umar laaj ko waaw am na yu ko daan jaaxal dafay woo Alioune laaj ko am na yu ko daan jaaxal dafay woo Ousmane laaj ko waaw parce que noonu la société musulmane di dox. ndegam nag islam moo permettre loolu ndegam islam moo permettre loolu te islam indi livre boo xam ni bépp livre bu ñu mës a falsifié livre boobu bokk ci muy alquran waaw muy le coran sacré waaw le saint coran ndegam islam moo indi livre boo xam ni constitution bi ci ne di alquran amul kenn koo xam ni am na maqaama mën a changer constitution boobu wala mën ca indi leneen. question d'interprétation rek ci la boroom xam-xam yi di diverger ñi wax lii ñi wax lii ñi wax lii waaw ci question d'interprétation mais amul kenn ku ci changer aaya alquran wala muy changer téere bi ci bopp waaw ndegam constitution islamique moo am doole boobu religion islamique am doole boobu le prophète de l'islam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am capacité ak doole boobu asantuma laag nag yeneen asantuma laag yeneen moo tax yeneen su amul débat am pensée unique rek. kooku boo ci bokkee mooy xamoo fa nga jëm waaw loolu mooy li ci ne parce que islam dialogue la waaw islam dialogue la waaw islam dialogue la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan bàyyi sahaba yi ñu dialogue seen biir mu soogay jël décision bi muy jël te décision bi mu jël mooy décision bi yàlla namm ni décision bi nii la war a dem waaw kon islam ci dialogue la mësa ne waaw su ko defee ku ne joxe sa xalaat ba buñ daan dem ba xare sax nga xam ni jihaad waaw ak jihaad ni mu rëy ci kanamu yàlla waaye buñ daan dem ba xare taxaw balaa ñuy dem xare dinañu xool ñan ñooy diriger programme bi lan la bu xare bi jeexee butin bañ fay jëlee sax butin bi fan lay mujje ak ci fan lañ koy def loolu yëpp dañ ko daan xool islam noonu la ma sa organiser waaw amul beneen organisation bu dul bii waaw moom islam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan wax. yonent bi moo daan wax ni bokk na ci ëllëg ñi ngay gis yawmal xiyaam nee na soo leen xoolee seen kawaru bopp ba seen weewu tànk nee na yépp ay bàkkaar la mu ni bokk na ci ku jullit yi am seen organisation muy financer islam wala muy doxal loo xam ni jullit yee ko bokk nee na ngay fexe ba yàqu waaw nee na di nga bokk ci ñooñ waaw wala nee na bokk na ci it ñi nga xam ni ëllëg yawmal xiyaam boo leen gisee seen kawaru bopp ba seen weewu tànk yépp bàkkaar la nee na mooy ki nga xam ni dafay jël alalu jullit yi du ko teg ci transparence waaye daf koy diigal képp kuy diigal alalu jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci nga bokk waaw moo tax mu daan chargé ñi yore woon comité bi yore wàllu finance ak yépp ni leen dërëm bu dugg ci keesu islam na ngeen ma wax dërëm bi ku ko ci dugal dërëm buñ ci génne nañ ma wax la pourquoi waaw yonent bi noonu la daan def bi mu demee ba Umar bés ni ko ah yow sang bi naan nga sonn ci contrôle bi yonent bi ni ko contrôle bii mooy seen njëriñ ndax bu ma leen contrôlé wul fii yàlla dana leen contrôlé ëllëg waaw inna ilayna iyaabahum summa inna alayna hisaabahum yàlla moo ko wax waaw yonent bi ni ko kon contrôle bi mooy seen njëriñ parce que su ma leen contrôlé wul fii yàlla dana leen contrôlé ëllëg waaw seetal boobu xalaat waaw te loolu yëpp nag mu tegoon ko ci dialogue ku nekk joxe xalaatam kuréel yi islam créé yépp ñu protéger héritage yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci domaine shariatu muhammadiya tey looloo dem ba nu mën a indi àtte bi mooy àtte bi moo dem ba nu mën a indi miraas wax ni miraas bi kat nii lay demee moo dem ba nu mën a indi ni boo dencee nangam ci alal jënd ci azaka nangam waaw parce que loolu bu organisation amul woon bu organisation amul woon loolu du mën a am waaw moo tax foofu yonent bi dafa daan bàyyi ñëpp ci jalo waaw su paree ñu laaj ka nag décision ba mu jël décision ba moom waaw moo tax yeneen organisation yi ñu bëgg mu développer réew ak yépp bés bu ci benn nit toogee ca kaw di xalaat naan def leen ñu def tànn naa ñu ni tànn na jëf leen ñu ni jëf leen kooku ku xool tubaab yi naan noot nañ la yaa noot sa bopp fii waaw ndax tubaab yi sore nañ waaw moo tax ma ni nooteel nooteel bi ci réew mi faw jeunesse bi xalaat ci ñoom waaw waaw faw jeunesse bi xalaat ci ñoom bañ a rek xool ni tubaab yi ñu noot déedéet ñu nu noot ñu ngi fii dëkk ak ñun waaw waaw lu jar a bàyyi xel la suñ ko bàyyee xel rek dinañu mën a xam dëgg-dëgg fi ñu teg suñu tànk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la defoon loolu la defoon muy tampon islam waaw nee na tampon islam dialogue la waaw waaw mu ni dialogue bi nag nee na kenn ku nekk na joxe xalaatam su boobaa xalaat yépp nee na ñu ëmb ko delloosi ko ci moom waaw lu am solo la parce que li mu doon bañ mooy su yonent bi jëloon ay dirigeant ñoo xam ne tey daf leen di jël rek ñuy ay xalifaam ku ne mu teg la ci place waaw ba noppi ni la bu dialogue am mais xalifa yëpp bu ñu dellusee ci moom kenn du attan sa bopp ndax garambu ndax day jur rëy rëylu loolu la doon bañ waaw loolu la doon bañ yonent bi loolu la doon bañ dafa ni su ma jëlee samay xalifa yi rek ku nekk ma teg la ci place kama yabal abisini ma ni la soo del demee foofu même boo fa fekkee ay jullit wala jullit yi fekk si la bul dialoguer ak ñoom waaw kama yabal yemen ma ni ko soo fa demee fekk fay jullit wala jullit yi fekk si la bul dialoguer ak ñoom yow toog fa rek di dogal loo dogal na ko ñëpp def kon ki jógee abisini wala ki jóge Syrie wala ki jóge Yemen bu dellusee dana rëy ba dootul sax mën a xam ni yàlla dafa tere rëy rëylu waaw parce que day dem ba defe ni lu mu wax rek loolu ñëpp di def fekk demewul noonu moo tax yonent bi ni ku ci nekk kuréel ga ngay diriger mu ni sudee ci sama tur la mu ni na nga waxtaan ak ña nga war a waxtaanal ñëpp ka ca gën a tuuti na ci joxe xalaatam mu ni xalaat yi waxuma jël leen décision décision yi jël leen ko indi leen ko ci man su ngeen d'accordee ci yàllaa may wax su ngeen d'accord mu ni ci yàllaa may wax may jëf mu ni te ne ngeen nangu ngeen ko ñu ni ko waaw mu ni kon bàyyi leen may wax ci kàddu yàlla waaw wa ma yantiqu anil hawa te d'accord ngeen ci in huwa illa wahyun yuha mu ni te d'accord ngeen ci waaw moo taxoon sahaba yi amoon habitude boobu moo taxoon ñu ameen habitude boobu te pourtant li ñoom Ababacar ñoom Umar ñoom Ousmane ñoom Alioune ak sahaba yi ñu àndaloon yëpp liñ daan wax xel mu rafet la waaye dañu yëgoon ni xel lu mu rafet rafet décision yàlla moo gën a rafet xel waaw te décision yàlla du woon ñoom ñooy dem ba ci yàlla muy jël décision am na ci kum ka jaarale nee na leen lu mu wax moom yàlla moo ko wax ñu ñu delloo si ko dossiers yi ñu jox ko yonent bi waaw mu décréter nañ def nii ñu def noonu nañ def nee ñu def noonu waaw yàlla ni nag bu leen mës a wuteeg moom mukk ci ni mu wax ni nañ ko def. yàlla ni bu leen mës a wuteeg moom mukk ci ni mu wax ni nañ ko def parce que heure bu ngeen wuteeg moom ca na mu wax nañ ko defee rek wute ngeen ak man waaw ñu ni lu tax mu ni parce que moom laa leen toppaloo wa ati ullah dëgg la waaye wa ati ur rasul waaw mu ni dëgg la mën ngeen ma topp nag waaye yàlla nee na man fa may teg sama tànk seen tànk àggu fa su ngeen bëggee seen tànk àggu fa da ngeen di fexe ba teg fi yonent bi di teg tànkam waaw ndax moom tànkam jote na ci man waaye nag mu ni yéen seen tànk jotewul ci man su ko defee ñoom ci organisation boobu lañ doon doxe ci organisation boobu lañ doon doxe ba héritage bu islam mës a am te muy ngëneel foofu la ko islam amee waaw héritage bu islam mës a am muy ngëneel foofu la ko islam mës a amee waaw mooy ci dialogue waaw dialogue bi nag waxuñu rek dialogue ak digganteeg ñeneen ña waaw bi ci jiitu mooy dialogue seen biir ñoom jullit yi ba noppi waaw ba noppi nag soogay dialogue keneen waaw ndax keneen lan moo nu boole. lakum diinukum waliya diin waaw ah vous votre religion à moi ma religion waaw kooku amul amul amul xàjje ak seen waaw kooku amul xàjje ak seen waaw moo tax organisation boobu lu am solo la crise yi dal àdduna yépp bu ñu leen delloo seen histoire u islam jàngal leen ko ci ñu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxale dinañ ñu gis ni crise yooyu yépp yàlla dana ko résoudre waaw kon yàlla na yàlla yàgguñu taxawu ci zahir ak ci baatin yàlla yàgg taxawu aussi le peuple palestinien jàppale leen ñoom it tabarakallahu waaw yàlla suturaal leen yàlla may leen ndam te yàlla may leen kiraay ci lépp waaw yàlla taxawu masjidil aqsa ak bépp lieu saint de l'islam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu